sa loxo waat ni lépp loo wax rek dëgg lay doon dañoo bëgg nga yëkkati sa loxo nga waat ni li ngay wax lépp lépp dëgg lay doon waaw waat naa je dis la vérité li euh, lépp day nekk dëgg merci euh, monsieur dañ la fi indi ah nee nañu da jël xaalis boo xamee ne xaalis bu lewul la maanaam xaalis bu salte argent sale nga jël ko jox ko ay ay nit nga wax fi ñaari wax benn wax ji nee nga ah, da ko jox opposition bi beneen bi ci des nga ne musicien nga ko jox ñu bëggoon xam xaalis bi kan nga ko jox kan can kan nga jox xaalis bi. mu ne. Ah, egg wax ko egg. Euh, monsieur Lamine Diack. Hmm. c'est Lamine Diack nest pas. yaa ngi dégg wala déggoo maanaam day laajte ba xam yow xaalis bu ñu lay tuumaal ne yow yaa ko joxoon dañ lay laaj ba xam opposant nga ko jox wala ay musicien yaa ko waxoon n'est-ce euh, bi ma joxee kii xaalis bi euh, c'est pas xaalis la boo xam ni euh, man nag damaa naax hmm. c'est pas possible. Ah, qu'est-ce que c'est ah, euh, ah monsieur ah. Lamine Diagne. waaw ma naaxoo woon ba egg. ñëw fii di wax ni da ngaa naax. loolu mënuñu ko dégg dégg nga woon ba egg fii. dañoo bëgg a xam xaalis bi xaalis bi ma ne eh monsieur Lamine xaalis bi xaalis bi ci boppam lañ bëgg a xam ñan nga ko jox. Eh? Euh, monsieur le juge si vous me le permettez. Mm-hmm. Euh, garde. mets-toi ici hein, s'il vous plaît. Euh, bu fekkee mënul wax nga def ci moom ok euh, monsieur Lamine Diack. Ah. Lamine Diack. waaw euh, Lamine Diop Diop. Garde, s'il vous plaît. comment. Lamine Diop. Garde. Lamine Diack Diack. c'est. ok <laughs> c'est Lamine Diack. daam lu bëggoon a xam. Ah. mooy argent sale bi ñu lay giñ yow ne yow yaa ko indi fii ci Sénégal joxoon ko ay nit yow yaa waxoon ne carrément donc ko joxoon opposition bi ah. ak musicien xam nga euh, tu l'avais dit n'est-ce pas ou bien bi ma ñëwee euh, ak euh, xaalis bi j'ai donné aussi sois plus clair monsieur Diack waaw jox naa ñenn ci opposition bi ñamal naa leen ci ñamal naa ci ay ñenn ñenn ñenn benn benn yoo xam ne mokkal naa leen ci xaalis bi muy ak société civile ñoom ñëpp dañ ñëwoon pour daaneel nguuru nguur bi nekkoon nguuru kan nguuru euh, Abdoulaye Wade parce que man euh, je me ne woon nguur gi il faut mu mu daanu je moo tax mun monsa lamuñ ñun loolu indiwuñu fii xam nga la lañ bëgg a xam ah. parce que bu ñuy topp dañuy topp nit mënuñu topp ay association mënuñu topp top euh, musicien musicien rek musiciens yi dañoo bëri ci ci dëkk bi dañoo bëgg a xam yow ñoo nga cité ñu ay noo wax ñu kan kan nga yëkkati xaalis bi teg ko ci loxoom ñan nga ko jox. waaw xam nga euh, bu ñu waxee musicien am na ñoo xam ne xaw ma leen mais am na musicien yoo xam ni euh, ñëpp xam nañ leen si ni ñuy waaye seen way way yoo xam ni ay way yu yu yu am solo. ñooñu aussi laajoon nañ parce que dañu waxoon ni dañuy dugg ci politique euh, bi. mais yow léegi monsieur Lamine Diack. nangu nga ni kon xaalis agent Sall bi yow yaa ko jël utiliser ko. Euh, du man donc euh, si ak opposition ñamal naa. monsieur le juge si vous me le permettez avec tous les respects que je vous dois. mais monsieur Lamine Diack a fait deux débuts. xel ni damaa naax. Lamine Diack tais-toi. nañ ci xam dara quand on parle tu te tais ok. fii benn mbaxana ma fi am te c'est le monsieur le président qui le porte ok j'ai été clair waaw le juge mhm. Lamine Diack dafa def ñaari délit premier délit bi mooy affaire dopage mhm. deuxième bi mooy agent sale moom mii moo ko def mhm. ba pare ñu interroger ko mu wax ko ne moom moo ko def wax cité carrément ne ñi ko jox ñii la kon lépp leer na monsieur le juge fii dossier li nga xam ne tey jii euh, war nañ koo leeral ah, lépp la wax lu leer dara leerul rien de mais nest pas yow yaa fi wax carrément ne yow argent bi yow opposition bi nga ko jox ah, mais damaa naax da ngaa da ngaa naax dinañ xam ba xam da ngaa naax wala naaxu xaw ma ko ah li ngay wax xam ko naax merci merci merci. Ah, merci. cere ma ne laax laa reere mhm, loolu mooy wane ni euh, damay damay juum mhm. damay juum parce que euh, na damaa naax mas laajal mas sa jaag mhm. daa fait une émission pour montrer que euh, damaa naax waaw léegi kii mu yére bu verte la sol bu zor baax na baax na monsieur Lamine Diack dama xamul kañ la ji commencé sol yére yu dina ci xel te di ni ma meloon di xam-xam bi ma amoon ak fi ma tolloon yëpp commencé naa ko ñàkk parce que léegi euh, damay perdre mémoire yu bëri xamatuma ko monsieur le juge kii bi may tuddee euh, làmb pour ma ñamal ko ci xaalis bi la aussi muy Youssou Ndour mosal naa ko ci ok je l'ai donné un paquet d'argent ak ñaari mbër yi aussi ku ci nekk am na ma la ñamal ñoom yëpp mos nañ mbir mi ñi ci mos bari nañ. mais est-ce que Y'en a marre ou bien. Y'en a ngi woon ci biir wala. ñam seen laafa yooyu lañ doon ñëw ba mooy duy ba mu fees seen laafa yi ku ci ku la nga ëpp laafa moo la ëppoon li mu doon li pagat ñoom yëpp ñamal naa leen ok monsieur le merci ñoo ko déggandoo Euh, monsieur Lamine Diack. le tribunal déclare. monsieur Lamine Diack a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Lamine Diack bu naax. Euh, Lamine Diack a tontu ci question yi. parce que d'accord d'accord monsieur Lamine Diack. parce que li monsieur Lamine Diack monsieur Lamine Diack mën ngaa noppi wala. monsieur Lamine Diack avoir reconnu les faits qui lui ah. jusqu'à la semaine prochaine. la science est